daan at bi sifflé waat na ñoom ñaar diggante Ba Ndiaga ak Boy Diobass lamba tëre di Ba bi bëri na ak Youssou Ndour bëri ñaari fagala yi Ñanka euh, bëri na ak Dame Sène bëri na koy Ba Ndiaga waaye kii di Boy Diobass bëri na ak bëri naa ko Mamar daal bëri naa waaye man nooyeetuñ. waaye waa Colobane nooyeetuñu. ba Jobaas. ba Ndiaga boo Jobaas. ba Ndiaga boo Jobaas. Mawlaay Abdou Ndiaye bu ñu mbal maa ngi koy nuyu sama xarit boobu. waaw. ko. xam naa ko. ak xam naa ko maas. da lay may xaalis. kooku da lay ñaanal may xaalis. yàlla ko yàlla defal jàmm. yàlla Baye Ndiaga Boy Diobass suñu xarit la sama xarit la man kese suñu xarit la Baye Ndiaga eh Baye Ndiaga xeex ñu ngi xeex ñoom ñaar Baye Ndiaga Boy Diobass Baye Ndiaga Boy Diobass at Boy Diobass saan Baye Ndiaga ñu ngi Eh. waaye kii di Caatu Kolobaan wala nga ne eh, man yoon na ko bañ xeex ba njagal nga xeex xeex xeex indo indo xeex ña koy xeex ba na ko mu na ko mu tërëf ña koy xeex ñoom ñaar eh. mais ñaar ñi ñamante Ba Ndiaga Boy Diobass Ba Ndiaga Boy Diobass Ba Ndiaga Boy Diobass gannaaw ba ngeen ñëwante ku ne ñam nga sa saf da ngaa def teg di déglu. waaye am na ñam ñamante. ah. ñam naa ko neex na ba naa ko Yaay Dial. o kay seen yaay jal borom ginaar yi borom njoñ yi borom sakal la o kay dañ ci boole raw barale <laughs> boole ci faas daan ñaari xale yaa ngi lewtoo ba njaga boo jobaas ba njaga boo jobaas ba njaga boo jobaas avertissement Baye Ndiaga avertissement Baye Ndiaga avertissement Baye Ndiaga avertissement Baye Ndiaga avertissement Baye Ndiaga saan ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Baye Ndiaga Boy Diobass Baye Ndiaga Boy Diobass ba dóor mu daan doom ba kaaw doom eh Bathie Ndaka Bathie Ndaka war na ko ndomba eh boo jawaas génn boo jawaas génn saako yi boo jawaas boo jawaas moo moo daw génn ar bismillah waat na to Ba Ndiaga ar bido la diggante Ba Ndiaga ak Boy Diobass Ba Ndiaga ak Boy Diobass la ak Boy Diobass gannaaw bañ mi temps wee ñëw ñoom ñaar daan ku ne am nga benn avertissement ñoom ñaar ginnaaw bi mi ñëw ba njaka dem ardo ñëw saan ba njaka at boo jobaas ba njaka at saan ba njaka door na jàppante dañ ba njaka xeex xeex ba kaaw doom ba kaaw doom ba kaaw doom xeexu mbedd ba kaaw doom xeexu mbedd ba kaaw doom la ilaha illallah ardo ardo ardo ardo waaw jox nañ Boy Diobass victoire oh jox nañ Boy Diobass victoire Ba Ndiaga nga